mbokk yi ñu teewlu ci Sunugal 24 nuyu nañu leen bu baax a baax di leen wax ngeen dal ak jàmm ci seen actualité yi gën a fës ci bésu tey bi di àjjuma juróom-ñetti fan ci weeru juillet atum 2022 ñu fas ne ko doore nag ak mbirum eh, ki nga xamante ne moom mooy Abdou Bara eh, Mbacké Dolly nga xamante ne nag tegoon nañ ko loxo doon ko toppee offense au chef de l'État Abdou Mbacké Bara Dolly ni ki démb nag la ko ki nga xamante ne moom mooy doyen des juges doon eh, déglu déglu nañ ko nag bu baax jëm ci bile dossier nga xamante ne nag ko placé woon sous mandat de dépôt fukki fan ci weeru juin bi ñu génnee moom Abdou Bara Dolly nag li ni mel daan na koy weddi ba mu set gannaaw rek ba ñu jàppee ni a nag ñàkk wormaaloon ki nga xamante ni moom mooy njiitu gannaaw ab marche boo xamante coalition Yewwi Askan bi ñu ko doon amal juróom-ñetti fan ci weeru juin bi ñu génn waaye nag bu ñu sukkandikoo ci libération mi nga xamante ni moo joxe yi les xibaar ñàkkuk déggoo rek moo am ndaxte ba muy wax mbirum suuf suuf sa nga xamante moo nekk nga xamante ne moom mooy Lat Dior moo tax muy wax te nag ab républicain la mu ngay jéggalu bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mii di président Macky ki nga xamante ne nag moom mooy maire Abdi Ndar Ndiaye moo koy layoon nee na nag kaddu yi nga xamante ne nag ab client daal dina koy yëkkati mu ngay nag ñaar ñu daal di koy def ab daan waaye tamit mu ngay wax ne ki nga xamante ne moom mooy Abdou Bara Dolly jéggalu na njiitu réew mi kon nag jàpp nañ ne bu yàggul dara dinañ ko nag may li nga xamante nag moom mooy bàyyi ndëggandiku gannaaw rek ba mu dugalee ab demande de liberté provisoire loolee nag di xibaar yoo xamante ni libération moo ko daal di xamle. neen ko xamante ne daal nay jëflante ak yoon a dugal tamit ab demande de liberté provisoire di ki nga xamante ne moom mooy professeur Cheikh Oumar Diagne Cheikh Oumar Diagne. xamante ni nag ni ki démb ci alxames bi la ko nag juge bu ñaareelu ak cabinet doon déglu gannaaw rek bañu ko placer sous mandat de dépôt boobee léegi nag toll ci ñetti weer faat bu Jibril Waar moo ko nag juraloon lii ni mel journal bés bi moo joxe bi le xibaar dellusiwaat nag ci mbir mi na mu demee waaye tamit nee na ay avocat dugal nañu nag ab demande de liberté provisoire ngir nag ñu may ko ab bàyyi ndëggandiku libération tamit daal di ci jaaraat nee na nag ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar Diagne bu ñu mayul nag dina dem ci ak njabootam daal di fay amal nag li nga xamante ne moom mooy feetu tabaski bi ñu dëgmal jiye bi nga xamante ni nag amoon na ci hôpital El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh ki nga xamante ne moom mooy Kumba Mbodj ñu tegoon ko loxo ci mille mbir moom mi la nag nekk étudiante nag def li nga xamante ni moom mooy examen bu ñeel wàllum licence bi nga xamante ni nag ci la nekk maanaam mu ngi nag atam gannaaw rek a formation boo xamante ni nag mooy tax mu nekk ab aide infirmière nag ki nga xamante ni moom mooy juge d'instruction bi daal dina koy nag faski ni bàyyi mu dem nag amal li nga xamante ni moom mooy examen ca na mu ware waaye nag ay nag dañ ko fas yéene nag escorté mu daaldee nag dem ca école boobee ngir amal ab examen ca ne mu waree di fàttali nag ne aide infirmière boobee nga xamante ne moom mooy Kumba Mbodj femme bi nga xamante ne moom mooy Awa Diop ñoom ñaar ñooñu nag ñu tegeen leen loxo ne moom mooy délaissement d'enfant ak tamit jël ab xale daal di koy bàyyi ci bërëb boo xamante ne nag dafa wét lool nekku fa ak kenn ñu placé woon leen nag sous mandat de dépôt te ne moom mooy ca maison d'arrêt et de ba nga xamante ne moo nekk ca diwaanu Thiès loolee nag mu ngi amoon ajjuma ñetti fan ci weeru juin atum 2022 ñu dem ca diwaanu Touba ca quartier ba nga xamante nag moom mooy gar bu mag ba mu nemmeekoo ci atelier boobee nga xamante nag fa lay daanee doole ne dafa am ay doomi aadama yoo xamante ne nag dañ fa doon ñëw di eh, tux mu ràññee ci nag kenn ci ñoom ne nag dafa nekk ab indi indicateur bu xamante ne nag police lay liggéeyal loolee nag métti lool waa jilee nga xamante ne nag ba nag la ñëw jël li nga xamante ne nag moom mooy ab barre de fer daal di koy xañ ki nga xamante ni moom mooy maam góor Diouf moom mi la nag ci saa si la daanu xamante ni nag ñoom ñooy dëkkandoo yi ak ñi nga xamante ni nag yem nañ ci bile seen intervenir nañ bu gaaw gaaw jël maam góor Diouf daal di koy yóbbu ca l'hôpital waaye nag foofu la mujjee jaare génn àdduna suñuy takki dara ba ñu leen woowee ci bile bërëb bërëb ñu gis nag waa ji nga xamante nag moomal bi la ñaawteef takk deret ci saa si lañ ko teg loxo waaye tamit néew maam Goor Diouf jël nañ ko nag yóbbu ko ci morgue bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ki nga xamante ni moomal bi la ñaawteef placé nañ ko en garde à vue nag mu xaarandi jërom ak ki nga xamante ni moom mooy procureur bu tribunal grande instance bu Diourbel xibaar las yéenekaay moo ko daal di xamle ñu dem ca diwaanu Diourbel foofee nag ab accident bu metti moo fa daal di am ni ki barki démb gannaaw rek ab 4 x boo xamante ni nag dafa mbëkkante ak benn taxi ci saa si nag ñaari doomi aadama ci lañ génn àdduna ñeenti blessé grave la ñu daal di am laas moo ko daal di xam ne waaye nag nee nañ foofee ca diwaanu Gossas la biir mi daal di xewee dañ fay nemmeeku li nga xamante ni nag moom mooy ay accident ci yoon boobee nga xamante nag moo nekk route nationale bi nee nañu nag mbir mi ba mu amee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy blessé yóbbu nañ leen sapeur pompier ñu amal li ni mel ñaar ñi nga xamante ni nag génn nañ ci àdduna kenn ki mu ngi doon wuyoo ci turu Christiane Fatou Fall nekk nag ab enseignante fa nga xamante ne moom mooy ci école élémentaire bu Jabel keneen kii di am di fay moom mu ne nag dëkkoon fa nga xamante ne moom mooy ca village bu Sambé di ab localité boo xamante ne nag diggam ak Diourbel mu ngi toll ci ñaari kilomètre donc mbir mi ba mu amee nag tijji nañu ab enquête ngir fexe nag ba xam lan moo sooke bile accident. xibaar yi ñu daal di koy ndar képpe ak ay chiffres yu doy waar yoo xamante ne nag kuréel gi de AGS daal dina koy fësal nee nañu nag seen juróom-ñetti yi nga xamante ne nag moo nekk fii ci diwaanu Sénégal ci atum 2021 daal dinañu nag enregistré lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti cas yoo xamante ne nag ci région bu Ndakaaru dong lañ ñeel nañu nag nag ndam criminalisé nañ li nga xamante ne moom mooy wàllum viol daal di nag voté li nga xamante ne nag moom mooy loi bi ca pencum àndaw réew mi waaye nag terewul benn yoon chiffres yi ñu ngay gën di jéggi dayoo loolee nag secrétaire exécutif bu association bi nga xamante ne nag moo ëmb juriste yi nekk fii ci diwaanu Sénégal di Koumbaka moo ko daal di xamle nee na nag viol ak wàllu pédophilie nekk na loo xamante ne ab crime la fii ci diwaanu Sénégal te loolee nag mbégte la ñu ci daal di am waaye tamit di fàttali ne secrétaire exécutif bu AGS bi li ni mel mu ko daal di xamle aw ab atelier d'échange boo xamante ne nag AGS moo ko doon amal fii ci diwaanu Ndakaaru bi le nag daal di yëngatu ci euh, li nga xamante ne moom mooy ay programme yu bëri yoo xamante ne nag euh, dañuy euh, sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi rawatina ndaw yi ci wàllum viol ndaje moom ñu doon amal fii ci diwaanu Dakar gisoon nañ ci ay magistrats ay avocats ay commissaires de police ay commandants de gendarmerie ñoom ñëpp teewoon ko ngir nag fexe ba gën a sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan bi ci wàllum viol mbokk yi jërë ngeen jëf loolee nag moo fi yësandi ci ay xibaar ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy Sunugal 24 ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ba léegi incha allah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 góor ngóoraa tax